asalaamaaleykum yéen mbokki Baol Times yi ñu seetaan tey ñu ngi seen émission métti bi seen émission métti bi tey mi ngi ànd kenn ko xam si ne fii la nekk ñu ngi koy wax monsieur Diop monsieur Diop na euh, euh, ci lan ngay yëngu. bon man comme monsieur Diop maa ngi ci enseignement bi jàngale professeur de collège en maths euh, sciences physiques en même temps aussi damay yëngu ci wàllu art plastique. waaw tey nag art bi moo ñu soxal ndaxte aar bi nekk ñu métti boo si ne. ñu bari yaakaar nañ ne amul jubal fekk na am na jubal waaye dafa laaxut ndax ñu mel na yow ci lañuy yëngu waaye kenn xamu ne ñu bëggoon a xam nag lan mooy seen problème fii ci njaareem yéen yéen ñi nga xam si ne ci aar bi ngeen yëngu. suñu problème ah bon à mon niveau xanaa laay wax ko bon problème yi daal def naa ni problème de reconnaissance la d'abord parce que fii bon dafa mel ni art plastique fi quoi man sax bon bi nekk naa fi lu yàgg xamoon ne am na fi ay artistes plasticiens. ci Fesman bi daal ci la découvrir fii am na ay plasticiens te la plupart de ces plasticiens là nekkuñu fi ñii ngi Dakar ñii ngi Mbour Saly et cetera quoi. waaw ah, kon yéen yéen ñi si yëngu maanaam yéen da ngeen di ci seen yëf yi bopp wala dafa am ñoom seen da ngeen di liggéey ñu leen di fay wala yéen seen liggéey fii naka naka la dem bon xanaa liggéeyal suñu bopp lii kay xanaa passion la rek boo xamante ni yaa koy def sa passe-temps quoi di ci travailler. mais amul benn structure walla kenn ku ñëw daal naan ñu liggéeyal parfois nag di nga am ay quelques liggéey ay chantier décoration ay affaire yi quoi wala ku soxla benn liggéey boo xamante ni dafa laaj volet artistique peut-être nga ñëw intervenir si te c'est des cas presque rares quoi je waaw ba tey mbokk yéen a ngi seen émission métier bi dégg ngeen ni mu ko waxee comme art bi art bi nekk na métier boo si ne. maanaam waajur bi fonkuñ ko loolu lool ndax dafa laax problème de reconnaissance wax na ko léegi nii waaye nag ba tey loolu noonu lan moo ko gën a waral mooy dañoo jàpp ne xanaa amul comme ça ni ñeneen ñi def nga si ne am na chambre de métier ngeen dem bokk foofu noonu pour maanaam état bi war leen mën a reconnaître ak yooyu noonu est-ce que est loolu yéen yéen a ngi koy jéem a def pour état jéem leen a xam. si jéem jéem leen organiser wu parce que xam amoon na fi benn formation bu amoon fii ñuy wax que nu mu bon waa école des arts def avec euh, l'appui de de l'ambassade des États-Unis alors ils avaient ciblé des régions Saint-Louis Diourbel ak Kaolack je pense bon quand instant boobu bu amoon na ay quatre artistes yu ñu desale fii ak ñi bëggoon ñoo xamante ni bëgg nañu am ay connaissances artistiques ñu ñëw ñu defal ñu formation de dix jours avec euh, un diplôme bon biñ paree ci loolu nag. ñu bari ils avaient émis le vœu de ñu former benn association même le gouverneur était présent gouverneur moon moon ñu woon sax su fekkee bëgg nañ def association mën nañu jàppale ci côté récépissé bi dama noonu après on a eu quelques réunions mais réunion bi sax am na ñoo xamante ni ñëwuñu ñëw réunion yëpp boo finalement ñu mujj former benn réseau des des plasticiens de Diourbel fekk benn artiste bu ñuy wax euh, kii Seck Aliou sec moom moo ko initié woon bon comme que ñun association lañ bëggoon fekk moom mu bëgg a créer réseau bi ma ne daal au lieu mu am deux structures parallèles mieux vaut ñu def ko benn ci lañ formé le réseau des praticiens de Diourbel mais le réseau quand même ça manque de dynamisme premièrement aussi appui amuñu ko amuñu benn appui xam naa sax looloo tax aussi amul dynamisme bi mu war a parce que action yi bëgg a def yëpp lépp suñu suñ suñu bopp ñoo suñu initiative bopp la waaw amoon nañ ay plan d'action mais pour ñu dé dérouler ko sax aussi ça a posé problème bon li ma si ni daal mooy peut-être daaw exposition bu ñu defoon ci kii euh, ci 4 avril fête de l'indépendance dañ ko defoon devant la RTS quand a un succès du point de vie public parce que forcément aussi y a du public mais quand même j'ai j'ai vu que am na daal am na tuuti ambiance quoi. l'art a vécu daal ce jour-là en quelque sorte. waaw ah, mais gis nañ ne maanaam nit ñi maanaam bëgguñ aar lool wala yéen da ngeen a ma seen ñàkk diplôme yu bari moo ko waral wala nit ñi ci seen jëmmi bopp la aar néew problème boobu tamit lan moo ko waral ba nga xamante ne aar siwul fii ci ñaari. bon aar je pense que nit ñi bëgg nañu ko parce que boo exposé say say œuvres nit ñi dinañ ñëw xool ko dinañ admirer mais fa la yem quoi. est ce que diplôme am na fi ñoom suñu diplômé nañu ci art fii ci Ndiaye. diplômé man moom je ne suis pas diplômé je suis autodidacte quoi bu muy nekk xale ci laa am amour du du dessin ci laa continué. mais est ce que xam nga ñeneen ñoom si ne ci biir Njaareem nañu dëkk am ay diplômes. waaw Aliou Seck il est diplômé de l'école des arts am na ay diplômé fii de. kon lan moo tax la plupart sax ñi bokk ci association bi ce sont des diplômés xanaa peut être man maa si diplômé mais c' est des professeurs d' art plastique. am ñoo xamante aussi ils aspirent à devenir des am na ñu nekk en formation à l'école des arts léegi tey soo doon woote aide maanaam pour administration Diourbel gëstu leen ñoom lan nga leen di ah aide je pense que <laughs> du mu ko demander sax plus que la structure parce que ñun def nañu ay correspondance loolu c'est formel bind dem dem mu jaar fi mu war a jaar bon sans réaction man mi personnellement bu mu fi soog a ñëw mu soog a jàngale fii quoi seen kër bu mag. sama principal doon na mu appuyer pour mu def exposition bon j'ai adressé une lettre au gouverneur euh, au conseil conseil régional mais ba léegi sans huit benn réponse man nag bon lool laa loolu laa fa laa mën a yem parce que doo dem fëgg seen i bunt ubbi ko par force ni ñëw leen damay exposé ça n'aura pas de sens je pense que en tant que ay autorité ñoom ñoo waroon déceler les talents qu'il y a dans la région jéem leen aider à ce que ñu mun a ñu mun a kii daal am benn épanouissement bi parce que pour un artiste c'est difficile d'abord nga nekk dans ton coin di travailler ba pare bëgg démarché démarcher dans pour faire valoriser ton travail bien que ça cela se doit quoi mais quand même war na am benn au moins petite action de la part des des autorités quoi. léegi sa baat bu mujj looy tàggatoo. bon xanaa. di di di ñaax jeune artistes yi nekk à Diourbel bon ci liñ nekk ñu gëm ko rek travail ko parce que xam ni c'est le travail fait man loolu laa gëm quoi ce que je crois c'est le travail nit ki loo mënti nekk na nga liggéey rek quoi et liggéey bi nga nga nga setal ko quoi maanaam nga jaarale ko yoon avec une bonne conscience ban ci jiital xaalis parce que Sénégal lu bari looloo ko yàq quoi nit ñi bu ñuy liggéey xaalis bi la ñu di ko séntu ko valeur liggéey bi alors que xamuñu valeur liggéey bi mooy indi xaalis tôt ou tard parce que l'argent ce n'est que le couronnement de d'un travail quoi maa ngi koy wax artistes yi maa ngi koy wax aussi ñeneen ñi nekk ci yeneen corps de métier yëpp en général ci nekk na ngay liggéey quoi nga parce que liggéey dafa doon dafa doon loo xam ni dafa ko quoi depuis loo xamante ni c'est dafa ànd ak doomu aadama parce que sasuñu ko sasuñu ko animaux yi suñu ko ñeneen bien qu'on les fait travailler mais tout ça c'est pour le bénéfice de l'homme donc liggéey ku ci nekk daal bon na nga ko fonk quoi man en tout cas art bi maa ngi si gisaguma si dara nag quoi gis naa bien que jaay naa si ay quelques heures nii après yooyu mais chaque jour ah quand j'ai du temps maa ngi si je travaille comme si comme si boo table boo paree table bi tu la vends à des millions comme ça quoi peu importe nag même su may travaillé kenn jënd ko aussi su ma koy exposé man je bien quoi mbokk yi li leen leen indiloon seen émission métier bi métier bi tey mi ngi dalaloon ci ñoom fi ne mooy Moussa Diop Moussa Diop ci wàllu aar lay yëngu xarañ ci loolu ne macha allah wax na problème problème yi nga xam si ne moo fi am problème yi mooy ñàkk reconnaissance ñoom si ne xamuñu leen te aussi waa njaarim tamit xamuñ lan mooy aar yooyu yëpp ay problème la yu bëree bëri yoo xam si ne su la ñanañ ko léegi li leen leen indiloon ci seen émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen waa Baol Times TV jërë ngeen jëf